dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV ci di Serigne Saliou Gueye di ab chroniqueur ginnaaw bañ ko invité ci seen YouTube bii di Sénégal 7 yëkkati woon na ay kàddu yi nga xam ne ni képp ku ci taxaw daal di ci amal ab seetlu di nga gis que ne luñ sosal kii di président Ousmane Sonko te muy que ne dafa jot ay financement yu obscurité yu jugee Qatar loolee xaajawul ba dëppook li am. son premier adversaire politique ki nga xamantene mom ñom ñaar ku ci jakku sa morom takku ci suuf pour demander yow léegi yow yow léegi nga ne xaaral man ma ñew jëbal sama bop lool xam mooy lan moy Ousmane Sonko jox na bopam ak sal ne ko léegi décapitement politiquement rend mënul wess lool <clears throat> yow sa yow yow sa adversaire politique nga ñew yow nga yow nga bind ko ne ko dama am xaalis nangam nangam nangam te kooku yow chaque jour muy saytu ci yow ndax am nga dërëm bo xamni lobal nga ko ci réew mi Ousmane Sonko taxaw fii pour des exercices de transparence taxaw fii ne lu ci nit xam ci benn dërëm bu ma mës a lekk. wax ko wax ko ku xam beneen kër bu ma amul sama kër gi wax ko. yow nga xëy xëy ne man j'ai besoin de protection parce que dama jël nangam nangam. dañ ko faut qu'on soit sérieux. ñoo ko déggandoo naka la kii di président Ousmane Sonko mën a xalaate ne day jël bic ak feuille ne day bind ab bataaxal kii di président Macky sàll ci mbir moo xam ne ne kum ko waxul ci àdduna bi doo ko yëg. mu ne day jël mbir moomee daal ko xibaar ki nga xam ne ne moom mooy noonam bu njëkk ci àdduna bi ndax loolee yenu na maanaa si lu logique bu fekkoon ne loolee am na est-ce que kii di président Ousmane Sonko bu fekkoon ne liñ ko tiiñal loolee am na est kon du doon def lu bépp mbindeef doon def bu situation bu mel noonu amoon teg mooy nga toog daal di jàpp sa ñàmbur ba enquête am buñ la indexé ngay soog a àddu ci loolee waaye kii di président Ousmane Sonko deb intellectuel bu kenn notable wul nak la mëna défé defee erreur boobee li ni mel lu mi ték rek moy ko ne xeetu tuuma yoyé ki di Matar job jël dal di koy ték ci ndodd ki di président Ousmane Sonko xeetu tuuma yoyé xajul bay dëppoog lu am. ndax kii di président Ousmane Sonko bu fekkoon ne amal na loolee sax bay bind lettre xanaa dina ko bind koo xam ne ne dina ko sàngu sutura waaye tamit dina ko aar ci bépp situation waaye noo jëlee ab lettre di ko jébal sa premier noonu koo xam ne ne bis bu la jàppee da lay rendi politiquement waaye tamit day yàq lu des sa ngiru dund ndax kookee moo ngi jéem a sax imaginer ay scénario ngir tëj la te defoo dara waxuma laa kookee nag nga xamal la sa secret mooy dee nga humainement politiquement ak léppement